Comme chaque année, nous, nous descendons sur le terrain pour offrir des bœufs aux, aux, aux mosquées à l'occasion de la Tamkharit. Cette année-ci aussi, nous n'avons pas dérogé à la règle. C'est la troisième année consécutive que M. Bey, DG du port, coordonnateur du mouvement GSE, dans sa commune dieuppeul derklé distribue des bœufs. Aujourd'hui donc, il nous donne encore l'opportunité et l'occasion d'aller de, de, vers les populations pour leur offrir des bœufs. Nous allons aujourd'hui commencer par les grandes mosquées. Il y en a huit au niveau de la commune. Donc tout de suite, nous allons vers la grande mosquée de Cassor, ensuite Derklé, les deux grandes mosquées à Liberté 5B, ensuite euh, Liberté 2, Liberté 3 à côté des sapeurs-pompiers. Ensuite, nous irons à la mosquée de la, de la prestation à, à, à Djepel. Et nous allons terminer par euh, le, les deux mosquées qui se trouvent à Cassor Nord, notamment la euh, grande mosquée Gaïenne et la mosquée des Cités des Eaux. Donc vous voyez que nous n'avons laissé aucune, aucune mosquée, aucune grande mosquée au niveau de la commune. Dès que nous, euh, nous terminons avec les grandes mosquées, nous irons voir avec les, les mosquées dites euh, Djaka, notamment à Derklé, notamment à, à Kassor encore, Djaka et Tukulor et autres, Bassos et autres aux alentours. Voilà, donc euh, euh pour l'instant, nous avons 22 bœufs que nous allons distribuer au niveau de la commune. 22 bœufs, ça couvre largement toutes les mosquées de la commune. Mais en dehors des 22 bœufs, il se pourrait qu'il y ait d'autres coins, en tout cas des, des secteurs, des cités où il n'y a pas de mosquée et que le DG vraiment compte y amener des, des bœufs. Nous attendons les bœufs au fur et à mesure. Nous distribuons aujourd'hui et demain. Euh, vraiment, nous, nous, voulons remercier M. Bey encore une fois de plus d'avoir euh, donné ces bœufs euh, aux, populations de Djepel d'Erclay. nit lu mu defal jumaa wala jàkk boppam lay liggéeyal lii mu def nag bettu mu man day def lu di ko ñaan moo xam lu mu bëgg si xolam yàlla na ko yàlla defal muy mu mag ba wax sëgam ngi koy ñaan yàlla parce que depuis un certain temps gis nañ ni mu yes yi muy def pour euh, nit ñi pour euh, population bi yàlla na ko yàlla fay daal yal na ko yàlla fay te yàlla na ko fay de parce que ku defaree jàkk sa bopp nga defaral yàlla nga defaral yàlla nag nelawul mi ngi gis te yaakaar bi ñu am si moom béy yaakaar bi ñu am si moom yàlla na yàlla bu ñu yàlla bu ñu naxtaay yàlla na ko yàlla may gudd fan fankal ko musiba ba la lax ko fi yàqee gannaaw bu ñu leen nuyoo gërëm leen ñu ngi leen di ñu ngi koy yëgal ni yónni na ñu mat a yónni mu yéen ñi ñëw mu xam ne rek lii def na ko defaat ko defaat ko. dugguleet dugguleet kon moom boole na boppam ci liberte 5 ndax soxnaam defe naa fi la nekk. fii waaw kon ñu ngi koy gërëm imaam nag nekk fi dafa génn waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal te liñ ko jox ba tax mu mën a def lii yàlla nañ ko jox nañ ko lu ëpp loolu lu ko gënal bi urmati rasulullahi sallallahu alayhi wa demee day ngeen ne ko ñañ fa fekk di imam ak membaru jàkka ja mhm. naayib ya bilaal yëpp gërëm nañu leen ndax gis nañu li ngeen indi mhm. di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne mooy mënal jaam yàgg di leen mënal waaw li ngeen mën ren ji yàlla ngeen mën lu ko ëppaloo déwén déwén fa tabarakallah dafay jamono boo xamante nag def ci lu baax dafa am solo bi dañ ci war a profité mhm. ndax di ay weer yoo xamante di ñetti weer wala ba ñeenti weer yu am barke lool ci islam booy xool tabaski tam xarit def nag nag fa mu ko war a defee nag ndax jot na ci jamono bi la te ci weer bi la encore muharram nag dafay weeru yàlla ba loo xamante ne loo ci defal yàlla rek subhanahu wa taala koy gis kon bu soobee yàlla nay wax amin kene ñun ñu ngi koy ñaanal fi ci jàkk ji ci néegu yàlla bi di wasila bi nga xamante ne mooy suñu jokkuwaay ci wàllu yàlla nu ngi koy bokk ñaanal kon yàlla na ko yàlla fay yéen itam yàlla na yàlla yàggal dëggal seen taxawaay yow mi ni nga ko waxee defe naa ñoo ngi fi yàggut ci man man xaw ma sax ne ci nga bokk ci membre bi ah yal na yàlla dëgëral taxawaay bi lool macha allah ànd bi yàlla boole yal na yàlla dëgëral ko su ko defee kon ne ko waa jàkk ji kontaan nañu lool ci moom mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi koy sant ñu koy gërëm loolu daal mooy yi nga xamante ne xëy na mënuñu ko ci ñàkk waa mm-hmm. xanaa ñu defal ko ñaan rek. bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ndokkeel leen yéen ñëpp. moom jiital ko ci ndokkeel gi ci atu jullit yi yàlla may ñi ñu traversé ko ba dugg ci te ñu gis ni at mi ñu génne wax dëgg yàlla kilifa yi mag jóge nañ fi mm. e ñu profité ci ñaanal leen jaale mbokk yooyu yëpp mm. waaye moom ñu ngi koy massawu di leen massawu yéen ñi nga xam ne yéen a koy jàppale yëpp ndax xam nañ e yaakaar yi ñu def ci moom ak coono yi mm. lii itam du ñu wax ni guléet moom depuis yàlla indi ko fi ba léegi mhm. ah mi ngi def lu nekk ñu surtout ñun ci jàkk ji mhm. xam nañu jamono bu nekk fàttewuñu ndax ñun sax du duñu dem ci moom di ko fàttali dara mhm. waaye moom dañu jékki-jékki rek ndawam ñëw indi ci tangu Covid bi nii ñëw na fi ci jàkk ji def fi ay teraanga yu rëy waaye lii itam ñëw na waaw bu ko defee nag discours yi muy bari dañ koy soppi ñaan rek parce que xam nañu yéeneem bu baax a baax mm-hmm. yéen ñi muy àndal itam xam nañ seen yéene bu baax mm-hmm. waaye ñi ñaan yàlla seen yéene yu rëy yooyu mm-hmm. yal ko yàlla mottali waaye moom it yal na yàlla dolli ko kàttan dolli ko ndimal moo xam li mu yéene ci xolam ay mébétam yal ko yàlla mottali waaye xam nañ ni bu ko yàlla mottalee yëpp dina sotti waaw su ko defee ñu def ñaan kon fatiha ayatul kursi yu salaatu ala nabi bu waay man aouzu billahi min ashaytani wa ana xayral ñaari baat yi ku wax jullit waxatoo ko lu ko gën a rëy Babacar Sadikh dañ koy ñaanal yàlla ak mouvement bi mu àndal ak kilifa yu mu ko seqal nga xam ne ma ngeen mat li ngeen doon ndax lépp lu mu leen mës sa yónni rek matal ngeen ko ba def ca loo xam ne tax santu leen ko loolu dañ leen koy sante di ko yóbbante ci yéen ay ngërëm di wan ni nag yi nga xam ne tabaarakallaahu du tey la ko jëkk def lii ngeen def ci gox bi du tey ngeen ko jëkk a def xaru tabaski yi barke démb la woon soble yi ak saako soble yi musu cee jóg tabaarakallaahu mu nekk fi mu ñàkk fee nekk mu voyage yi yéen koy taxawee kon ñun waa jumaa ji ak ci turu imaam yëpp ak ci turu maanaam mbooloo mi yëpp ñu ngi ñaan yàlla allah subhanahu wa taala lu mu mën déwén yàlla na man ren lu ko ëpp lu mu mën ren lu ko ëpp déwén yàlla na mën lu ko ëpp lii nga xam ne moom lay yóotu ci gox bi di ko yóotu ci réew mi di ko di ko jàppale Macky Sall yàlla na suñu borom teg ko ci loxoom te ñu ànd ak sago fekke ko kontaan nañ ci moom bég nañ ci moom te ñu ngi ñaan yàlla allah subhanahu wa taala ci kaw ci kanam incha allah ndaxte kamaatu diin tu daanu kenn defagul lu baax te lu baax lu baax rek lay am incha allah ñu ngi lay sant ci turu mu baax bii nga xam ne mooy am mooy amical bi di mayor di kenn ci moom nga xam ne doomu ndeyam la xaritam la léppam la lépp lu muy jaarale ci mayor muy egsi ci ñun yéen nan maa xam ne dañ leen bàyyee suñu borom rek ak ah, ak ah, ak ah, suñu borom barkeel leen incha allah yàlla na yàlla dolli barke dolli sutura yàgg ko taxawee yàlla guddal fanam nag incha allah yàlla may ko ci whatsapp bi maam li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mbas gi suñu borom may ko ci ndam ba ba fi fi réew mi war a àgg yëpp ñu àgg fi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi mu tëdd bi alayhi salaatu wasalaam di leen dokkeel at bu bees bu ñu nekk nga xam ne muharram bu ñu nekk nii mooy marqué premier weer ci atu musulman bi fa tabaarakallahu bis bu tedd nekk si muy bisu tamxarit sallallahu alayhi wa sallam wax si xéewal yu bëri bari bokk na si guddi tamxarit bi mu santaane si ñu yaata suñu njaboot ci contexte boobu nag moom la suñu mag yi amoon aada ba ñuy def bu jotee ñu xool dañ ay bernde yoo xamante ne kër bu nekk dana ko def fa tabaarakallahu nag lislaam la diina social la diina jàppalante la kon nag bu fekkente ne directeur DG Port Aboubacar Sadikh Bey dafa ñëw pour jàppale commune bi waaye jàppale ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci wàllu mosquée Liberté 5 ci lan jàppale leen ci ay xéewal ay bernde ba bis boobu kenn ku ne mën a yaati sa njaboot loolu dañ ko koy sante bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yàgg a def lépp loo xamante ne ay mbébétam la ci commune bi yàlla na ko yàlla sottil bi jaay si di wujud loolu nag ñu ngi koy wax ci turu imam Almaame Dramé nga xam ne moo di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen taxawaay ci commune bi lépp loo xamante ne yéen a ngi koy séntu suñu borom yàlla na ko fa yàlla yeggal leen di jaay si di wujud ren tam ñu ngi ci contexte yi ci année boo xam ne xaw na métti ci wàllu mbas mi ñu ngi siy ñaan suñu borom yëkkati ko moom mi nga xam ne dara tëwu ko ñun la jaaxal waaye moom jaaxalu ko ñu ngi koy ñaan na comme moom suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu musa aar ñu ci lépp loo xam ne duñ koy ragal